ndax nit bu dañuy jëm bu ñu jógee Sendou bu ñu jógee Bargny dem Sendou bu ñu jógee Sendou dem euh, dem dem. mooy borom social yow mooy borom social yow. donc depuis bërki démb ci guddi ñu ngi ñëw fii ci région de Thiès ñu tàmbali Tivaouane fa la ñu fanaan euh, donc Tivaouane kenn ko ne xam na euh, importance am bi mu am sur le plan économique mais surtout sur le plan religieux donc fa la ñu fanaan xëy suba dem Ndiassane euh, démb ñu ñëw également donc cees xam ngeen ne dëkku dëkku dëkku diine la dëkku diine la dem nañu. Euh, ci këru diine yëpp yi nga xam ne xam nañ leen ci Thiès jàngu bi rek lañ demul ndax moo nekku fi fii kon aussi dañu fay dem ci moom euh, ziare ko comme ni ñuy ziare ñëpp surtout ko ñoom aussi ñu ngi nekk ci temps carême waaye dem nañu euh, ci kër këru diine yi léegi léegi nii ñu ngi jógee kaw Fall donc dem nañ ci sëñ sëñ Muniru Njëgeen dem nañ également Thiénaba dem nañ kër sëñ Mor sëñ Mor Ndiaye suñuy suñuy mbokk yoo xam ne Jolof lañ jógee ñëw fi te ñëpp respecté leen bëggoon nañ dem sax am na peut kër yoo xam ne demuñ fa suñuy xarit xarit nekk fa euh, tey jii jot gi moo ñu ko manqué moo tax uñ ci sëñ Gaye Dello nga xam ne suñu xarit la suñu wëlëre la waaye suñu suñu xel mi ngi ci moom parce que ñoom li ñu bëggoon ci loolu mooy dem fa waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne lii mooy suñu programme du rek uniquement ñëw dañoo bëgg ngeen ñaanal ñu waaye dama bëgg bi ma leen koy wax ñaanal leen ma ma nekk ci bopp réew mi waaye su ma nekk ci bopp réew mi lii laa bëgg def parce que damay bañ ngeen ñaanal ma ñaan ngi dal fekk mu ñëwee safaan laa fiy def boobaa boobaa kenn ku nekk ci yéen dana ci am responsabilité waaye fii ak juróomi at ñuy dundee lu ñuy bay di bay lu ñuy dundee te kenn ku ne xam na sëriñ yi fi nekk yëpp yàlla def na ma nekkee ministère de l'agriculture gis naa li daan yëngatu ci wàllu mbay am na taxaw bu leen taxaw te xam naa lu tax ñu defoon ko lu tax ñu defoon ko mooy ñoom ñëpp dañoo am ay charge yoo xam ne mbay rek moo leen ci mën a génne ndax duñu ay salarié loolu moo tax ma bëgg ne bu ñu yàlla tega ji ba prix mi danañ ko yokk danañ ko yokk ba ñu xam ne eh, am nañu ku leen di topp toppatoo loolu souveraineté alimentaire laa ne dama bëgg mooy fii juróomi at mooy objectif bi ma joxe te kenn ku ne xam na ne fii mbay ñi dax bay ci Sénégal ay sëriñ lañ ñoo fii dax bay donc bu ñu leen jàppalee danañu bay loo xam ne lii ñun ñëpp danañu gis seen bopp suñu bopp donc loolu dafay li am solo ma aussi wax leen sama yéene ci daara yi parce que nee naa leen yéen ñëpp kenn ku ne dégg ngeen Sénégal affaire yu coow ñuy mendicité bi ñu ciy wax xale yi nekk ci mbedd mi mais la vérité xam nañ lu ko waral d'abord dañuy dañuy xale yoo xam ne dañoo nekk ci segment société bi te état dugalut ci seen formation dara loolu mooy réalité c'est-à-dire que boo xoolee école bi ñu ciy dugal ñi ngi ciy dugal neuf neuf cent milliards at mu ne école bi bu ne ñeenti million euh, élèves ñoo ci ne école bi ministre bi loolu am ci budget mais daara yi am na lépp un million deux cent ba jëm un million cinq cent amul dara ñu ci dugal kon même bu fekkee sax doo ko comparer à 100 pour cent moo tax ñun ñu jël engagement ne bu ñu yàlla tegee ci bopp réew mi bu jaree ñu modifier constitution bi pour que xale yi ñu leen di jël en charge danañ ko def dugal ci ñoom xaalis boo xam ne bii dana mën a permettre sëriñu daara yi di mën a recruter ñoo xam ne dañ leen di jàngal ci daara yi danañ mën a permettre également xale yi di am lu ñuy dundee également loo xam ne danañ jël en charge loolu bokk na ci lii liy stabiliser bi

fanweer yi pour jàppale ñoo xam ne ñuy recruter ay jàngalekat fanweer yi ci des pour seen dund ak seen nekkin loolu gëm na ne te loolu tàmbali bi dong la 2025 dana ëpp lool. kon loolu mooy suñu yéene te gëm na ne bu ñu wax nañ ko sëriñ sëpp xam nañ ko xam nañ ne suñu yéenee la te xam nañ ne man du ma digal lu wax boo xam ne ni jàpp naa ne mënu ma ko. mel ni raay bi tam am nga ci yéene. waaw nañ ci yéene amul benn réew au monde bu transport bi di développé te raay bi doxul am na effort yu am solo yoo xam ne gouvernement bii génn def na ko. waaye ñun dañoo bëgg mu wees foofu transport transport de marchandise def ci am solo transport c'est vrai que tey jii nii euh, daanaka raay bi Thiès la yem Thiès la yem euh, bële ma ngay dem Diamniadio yeggagul peut-être transport bi sax xaw na wute mais au-delà de ces deux transport bi war na mën a dem tey ba Tamba wala ba wala ba ba ba Kaay parce que loolu dafa am solo transport war na mën a dem ba maatam comme ça camion yi jógee maatam bu fe euh, wàññi jaar bi ñu jaar ci yoon te jaar chemin de fer yàlla def na Sénégal am na mine de semaine fer euh, mine de fer mine de fer bu am solo ça veut dire ñun et puis mine de fer de qualité ça veut que ñun bu ñu exploité suñu mine def ci sidérurgie bokk na suñu programme maanaam suñu programme minier de façon générale li bëgg mooy lépp lu xeetu mine bu fi am duñ ko génne à l'état brut di ko jaay dañ koy transformer mine de fer bi da koy def suddérigu transformé ko fer yii dem ci bâtiment yenn yi mën a dem ci chemin de fer ñu defar boobaa mën a defar raay bu ñu bëgg li des peut-être ay wagon nga mën defar ak leneen parce que loolu moo mën a accueillir transport te kenn ku ne mooy position de fer dina dundal chemin de fer te gëm naa ne de fer yi Thiès wax fi mu lu mooy chemin de fer ñoom ñoom fi mu doon de fer dafa leen piquer ba pare mënatuñ ko bàyyi kon nag